dañ fi daje woon tey di def benn atelier de formation de capacitation des agents du ministère du commerce sur la loi de 2021 sur les prix et euh, la protection du consommateur comme ni ngeen ko xamee administration commerce depuis indépendance moom mooy saytu njëg yi moom mooy tamit aar ñi nga xam ne ñooy way jëfandiku yi di consommateur yi gis nañ nag ne boobaak léegi àdduna bi day dox année année quatre-vingt-dix yi dañ daan wax libéralisation du commerce maanaam lu bari état yoratu ko da ko bàyyee secteur privé bi ñu dox ba jamono mondialisation am ñu doxaat ba jamono euh, fii ñu toll euh, depuis bi Covid amee ak euh, xew-xew yu am ci àdduna bi yëpp ñu dellu siwaat ne faw ñu sàmm ki nga xamante ne moom mooy ak aar ki nga xam ne mooy woy jëfandiku bi ndaxte ñu ko bàyyee ak ñi nga xam ne ñooy jënd ak jaay mën na am du gën ci ñi nga xamante ne ñooy njaboot yi. loolu moo tax nag ñu ne loi bi li mu wax ñu gën koo fësal Euh, président de la république nag jël ay dogal ci atum 2023 bi mooy yokk li nga xam ne mooy moyen ministère du commerce téeméeri oto yu bees ay oto yoo xam ne wax dëgg yàlla ministère du commerce mosuñu ko am ñoom ñii fi yàgg nee nañ euh, mosuñu ñoo am téeméeri oto ci benn saa ñu jox leen ko ñaareel bi mooy euh, formation fexe ba ñuy gën forme former chef de service yi di gën a former agent yi ñu xam dëgg-dëgg lan mooy seen wareef xool tamit di ñuy doxee naka la ñuy nattee seen liggéey ndax dox na wala doxul mooy euh, bâtiment yi nga xam ne moom la service du commerce yi di occupé ci àll bi ci dëkk yi nga xam ne ñoo ne ci biir réew mi foo dem rek ci dëkk bi am na service régional wala service départemental donc nekkin bi ñu fa nekk ak dëkkin bi ñu sàmm ko ñoŋal ko améliorer ko ba ku ci ne boo nee rek sa sa mën a sa sa nekkin gën a rafet donc loolu moom moo nekkoon li nga xam ne moom la ñu andi ndaxte administration dañ leen war a jaajëfal gën a yokk seen ay moyens gën a yokk seen ay capacité ngir ñu mën a def liggéey bi ni mu waree. njëriñu plateforme bi c'est pour ñu permettre euh, ministère du commerce muy saytu njëg yi yi nga xam ne état du Sénégal fixé na ko pour dimbali consommateurs yi ñu ñu ñu yombalal euh, dund bi ci réew mi. donc euh, plateforme bi day tax ministère bi day am euh, visibilité ci jënd beeg jaay bi. ci euh, territoire national bi yëpp donc jaaykat yi pour ñu mën a jot ci plateforme bi dina am ay ay volontaires de la consommation yu ñu yu ñu recruter recruter ñoom dañuy dañuy dimbali agent assermenté yi ñu mën a def recensement point de vente yi nga am yëpp ci teritoire bi donc bu ñu defee recensement bi ba pare volontaires yooyu ak agent assermenté yi dañuy wër dëkk bi ku ci ne ñuy ñuy leen di permettre ñuy def ay signalement signalement yi day tax Euh, ñu mën a euh, dénoncer prix yi nga xam ne jaaykat yi respecté wuñ ko donc buñ defee signalement yooyu ministère bi daf koy jot su ko jotee saytu ko te bu bu jaree ñu def ay poursuite ñu ñu ñu ñu ñu ñu yegg ci yooyu